premier ministre si gouvernement scolaire de notre établissement tey moom muñ ne daanaka wax ci jenn la dañuy jéem a rek leeral li nga xam ne moo waral tey suñu doxandéem bi ndax umbaliwu leen ne lu ëpp ñaari weer a ngi nii mënuñoo jàng jàng bu baax ngir sax nga am waxtu bu mat ak say jàngalekat daanaka mënatul ne loolu yëpp dara warul la lu dul ay bataaxal yi nga xam ne dëppoon nañ ci nguur gi ak jàngalekat yi ngir gën saytu ni nga xam ne moom la ñuy fayee ñi nekk ci nguur gi ba lépp yembee nguur gi jël lépp teg ne euh, yeyu ci yabiwu ci mbir mi dem ba di si ndoddal suñu jàngalekat yi ñu jël seen yoon na duñ jàngale dootuñ jàngale seeni i mu nekk loo xam ne dafa métti lool si ñun ñi nga xam ne ñooy ndonga yi taxewuñ ci laalewuñ ci ñoo si gaañu loolu nag tey moo waral suñ doxandem bi fii ngir mu leer si boobu nit ñu xam ne kam ko ñu dugal ñi fa nekk suñu bërëb nañu fa génne si nu mu gën a gaawee te it duñ ko nangu te du yoon suñuy morom ndongo yi nga xam ne ñoo nekk si école privée yi di def seeni di jàng ni mu waree te amuñ benn jafe-jafe te ñeen di jàngal mooy jàngalekat yi nga xam ne ñoo ñu fi bàyyi loolu dafa ñaaw te li nga xam ne mooy jàngale meeg jàngale mi dafa war a nekk loo xam ne dafa war a nekk njëriñ pour sénégalais yëpp bir na nekk suñu bataaxal jox nañ ko préfet ngir mu yegg yeggali ñu ko li ñuy joytu ci nguur gi rawatina ki nekk ci bopp muy Macky Sall ak dagam bi nga xam ne moom la teg ci jàng meeg jàngale mi muy Mamadou Talla ci ni mu gën a gaawee ci turu élèves yëpp mënatuñu mënatuñu mënatuñu te ñu bàyyi nañu ko régleel parce que dañoo sonn ñu ko régleel ci ni mu gën a gaawee te yaakaar naa tey Sénégal yëpp jaaxle nañu képp ku dem Sénégal jaaxle na ndax mënuñoo nekk Sénégal mu nekk réew moo xam ne dafa nekk ci yoonu yokkute ak yoonu coppite te xam ne ne loolu da soxla say ndaw ngir ëllëg li nga bëgg sa ndaw ngir ñu taxawee ko mënut a am lu si jàng kon tey bu takk tembee lu ëpp tuuru nañ ci gën a nañ ci nañ ci taxaw ci nu mu gën a gaawee ñi nga xam ne ñooy ay ndong yu nekk ci classe examen yi ngir ñu gën a mën a waajal seen examen ngir ñu mën see jàll comme ni mu waree sinon lii nii bu bu jëmee nii fu mu jëm bërëb ba du am ndox te dina métti ci ñëpp kon ci nu mu gën a gaawee nañ ko réglé ah ñu ah delluwaat si jàng loolu lañ soxla ci la ngeen jëf ah vive l'école sénégalaise collectif des élèves du département d'Umbourg, à Monsieur le préfet du département d'Umbourg, mémorandum du collectif des élèves du département d'Umbourg. Monsieur le préfet du département d'Umbourg, nous vous écrivons ce mémorandum pour vous faire part de notre indignation face à la situation que nous sommes en train de vivre en tant qu'élèves de notre circonscription. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis deux mois, nos enseignants sont en grève. Nous ne pouvons, nous ne pouvons plus faire plus d'une heure de cours, plus d'une de cours par matière dans la semaine. Au moment où nos camarades qui sont dans les écoles privées font correctement leurs enseignements, apprentissages. Chose que nous ne pouvons plus accepter, car au Sénégal, il n'y a pas de bac pour les privés et le bac pour les publics, ni de BFM pour les privés et de BFM pour les publics. Nos élèves du public. Nous sommes les grandes perdantes. Nous sommes les grandes perdantes qui peinons à atteindre le quantum horaire normal. La grève perdure. Plus, notre année scolaire et notre avenir sont hypothéqués. Les élèves qui sont dans les, dans les classes d'examen sont équités également pour leur avenir. Car toutes les classes sont importantes dans le cursus d'un élève. C'est pourquoi, monsieur le préfet, nous les élèves du département de nous les, écoles du département de voulons une école où règne la paix et l'équité pour toute éducation ne doit pas être privatisée. Nous voulons une école sénégalaise sans grève, sans discrimination, avec de bonnes conditions d'études. Monsieur le préfet, nous vous prions de bien vouloir être notre interlocuteur auprès de vos supérieurs hiérarchiques pour leur faire part de nos doléances dans le plus bref détail. Collectif des élèves du département de